affaire bi nga xam ne <clears throat> moom laa bëggoon wax te bii moom c'est pour nos frères boo leen xoolee tey àdduna bi yépp waaw ah, pëlu ndere waaw moom laa lakk nii tey waaw tey boo xoolee àdduna bi yépp àdduna bi yépp ñu ngi yëkkati benn kàddu nee nañu waa ji sàll dafay ñëw Sénégal nee nañu doomu Macky Sall mooy takk soxna donc Macky Sall nee na moom day ñëw Sénégal waaw donc jot naa ci ay appel jot naa ci ay nit yuy kaas jot naa ci ay nit yu koy naqarlu jot naa ci ay nit yuy mettitlu waaye il faut ngeen comprendre ne ful la mooy Dakar voilà donc Dakar mom, ful la koy jay wala kayma ñam jeexal ko donc je pense pas que man manatina jangalati sénégalais li nga xam mom moy régler problème Macky Sall ndax Amérique fi fi du Sénégal ah, mais gisulen Macky Sall di fi dox ñun ñukoy koy muy yaata yombe di dox fi dedet fi bu fi ñëwee dañ koy barikade. Macky Sall saa bu ñëwee Amérique ñun dañ koy barricade donc Sénégal nag dara ñoragu fa ba ñu koy màcc xam leen ne amul benn luwaa bu ko interdire dugg ci réew mi amul benn luwaa ci Sénégal buy tere Macky Sall dugg ci réewu Sénégal comme ni mu amewul woon benn luwaa bi muy génn ci réew mi moo tax tey ngeen gis sax reewande gu bari googu ngeen gis ci dëkk bi ak wax ju bari ji looloo ko waral parce que amul benn loi bu leen tënk amul benn loi boo xam ne moo leen topp amul benn loi bu leen jàpp donte li may wax nag fulla mooy jaay Dakar wala kaay ma ñam jeexal man sénégalais yi ma xam fulla ak fayda rek laa leen xamee et je sais kenn du mbec sa yaay wala rey say doom ñëw di la romb di do di dox avec sang froid mel ni dara xew parce que am ngeen fulla am ngeen fayda bu leen ci xaar gouvernement de gouvernement bi ñu ñoo leen fal mais ñoom dafa am loo xam ne dañ leen ko sas ñoom ñu ngi ciy dox gëm naa man ne buñ ci yeggee Macky Sall ak ñoo ñoom yëpp dinañu dem ci biir kaso bi man xam naa loolu mais pour le moment comme gouvernement bi amul dara lu mu décidé may leen ma une seconde hello Who's calling, please? Okay, July 18. Mm mm-hmm. ni ma leen ko waxee fulla mooy jaay Dakar sénégalais am ngeen fulla ak fayda ñun buñ ko barricadé Amérique mu dem waa France ñooñu tamit barikade ko muy dem ci yeneen dëkku àdduna yi ñu koy barricadé te Sénégal la reyee nit ñi te léegi nekkatul dara ci senegal ful la mooy jaay daqaar man soxlawul ma wax leen loo leen war a def déedéet vous êtes assez nombreux te li ngeen li ñu ñàkk ci doomu aadama ñun ñëpp xam nañ ko li ñu toroxal ci doomu aadama ñun ñëpp xam nañ ko voilà encore une fois Macky Sall ce qu'il est il est ñun fal nañu président fal premier ministre nous ne avons, doxal leen ñu yoon saytul nous ñu donte teg nañu kuréel yi nga xam ne un sur place amul dara lo Macky Sall Sénégal wala man nako téré du Sénégal mais Macky day Macky tey buñ ko bëggoon jox santam bi normal dañ koy tuddee Macky lambkat parce que day lamb bu lambee mu nooy day koy dem Macky bu lambee mu nooy Macky bu lambee mu nooy dafay insister bàyyi leen loolu xel sénégalais yi delloo siwaat leen xel yi gis nga boo leen fi sàgganee bu ñu fi sàgganee ba bàyyi Macky mu commencé lambar lambare Sénégal seen xol yi ñooy comme ñëw dagg rek te doo leen ci man dara arrêté leen ko léegi balaa muy trop jël leen kaani xeeñ toj ko ndey ci bët bi toj ci bëtu soxna seeg doom yi ba Macky xam ne ñun sénégalais yi du ñàkkuñu fayda mais si vous permettez à Macky Sall de faire ses va au Sénégal yabeel rek lay indi daf koy continue donc nañu am fulla am fayda am jom voilà man man ba léegi munuma leen wax à cent pour cent ne Macky Sall dina ñëw munuma ko mais li ma leen mën a wax mooy xam naa ne am ngeen fulla am ngeen fayda am ngeen caractère am ngeen jom bàyyi leen loolu xel voilà dama ne am ngeen fulla am fayda am caractère am jom bo toge togué makisal, Macky Sall mu ñew Sénégal makisal, len togué Macky Sall mu ñew Sénégal di fa lambar-lambari billahi wallahi tallahi sen xol yi dina wad du xam ngeen Macky dafa mëna kékanto Mana mën seen xol yi dina wodd boo leen ko sàgganee dafa dawoon dem Maroc waaye lamb na gis na ne nitam yi ñoo nekk surplace ba léegi gis na ne nitam yu réew yaa ngi continuer def seeni affaire réewande gis na affaire yu yabaate yi continuer na donc dafa ne kon comme lamb na comme mbir mi nooy na man man naa nooy neex xaaral ma nit ma dem xooli mais boo leen ko ko permettre dootu leen ko dolleeti ba àdduna tukki deele ba pare ki la rey mooy li ñuy ne euh, ki ki rey say rey say mbokk ba pare ñëw di la jaale moom la leen makki di def dina leen kokkoli dina leen xoñoñal seen xol yi di dagg te doo leen ci man dara bu kenn wax ay mbirum nag euh, nguur gu bees nguur gi ñu fal barki Dembo Ndiaye amul benn loi boo xam ne teg nañ ko sur place buy mën a arrêté Macky Sall waaw dinañ fa yegg nak mais ñom dañu nek def seen liggey rew yu mag yi ni lañ koy doxale voilà mais du ñom ñoo ñuy tere euh, jàkkaarloo ak Macky Sall nguur gi seen yoon neew ci bu sénégalais yëpp gennon fàq seeni ay yar dem fekk Macky Sall fa ne def nonu ndayam kenn mënuñu ko eh, tere kenn mënu len ko tere voilà ken mënu len koo tere kenn ku nek ci yéen préparé len dégg ngeen Macky Sall rek ku ne pare ngeen dajeeg mom dafa rep waaye futti ko ba mu set ci mbeddu Dakar yooyu si faaye ko ba taatam tang ngeen fajal sen bop billahi wallahi tallahi lazim ken dootu leen yàpp même ñii fi ne bu nekkoon sen xel sax dinañu ah ñii dañu am fulla mais nak bo len toge fa ngeen tok bay Macky Sall mu ne yaataa yombe ñew biir Sénégal def fa du n'importe quoi bu kenn ñëwaat fi di joy du man de Ousmane Tounkara may tok bi naan wa gis ngeen Macky Sall dede li ma am pour wax len ko mo nek ni fàq len ndey seeni ay yar ngeen préparer sen bop préparer wu bu baakha baakha baakha baakha baakha baakha Macky bu ne fak ci dekk bi ngeen wutaliko si faaye ko ba taatam tàng parce que du amati garde ah. bu amee garde bu baree ñaar lay doon ñaar te kenn ñemew cee gàddu fetal ci biir dëkku senegal comme ni mu ko doon teree euh, euh, président Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye fay ñooñu yabuñ ñu sax ñu ne ay gardikoor yu yor fetal ñooy sàmm Macky Sall kenn yabuñu pour wax loolu Macky Sall ñi koy sàmm kenn du yor fetal kenn amu ci droit yor fetal parce qu'il n'est plus président de la république ngeen jàpp Macky Sall ñuus ko ay ñuus national il faut suba lundi la wax lundi noonu jour de news national mais boo leen toogee fii di seetaan Macky Sall mu yaataa yombe daagu ci biir Sénégal Macky amul lu muy ruste gis nga bu fa jógee dina ñëwaat c'est un test test la fak la nday seni ay yar te le Macky test la nek, test la nek. dama ne test la bu len nangu Macky Sall di ñu fonto lolu bu len ko nangu Macky Sall jël len kaani xëñ ngeen ko ci bëtt bi toxoñ ko ci bëtu jabar ji bo leen sagane Macky Sall billahi ginnaw suba ngeen gis Marème Faye Sall ñew Sénégal commencé waat lembal buma leen li wax ni bo leen ko gëmul tok leen ngeen les dames VIP ses amis elles sont toujours au Sénégal ñom ñu ngi wax dañoo ragal fi mu ne ni mbiri woru leen mais buñu ñame mu noy mu neex billaahi wallaahi tallaahi lazim di ngeen am lu leen naqari donc loolu la amoon loo xam ne dama koy wax ci mbiru Macky Sall sénégalais xam naa ne am ngeen la am fayda am jom et je suis sûr et certain que doo leen bàyyi ku leen yàpp donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp fulla ak fayda rek waa salaamaaleykum wa rahmatulah.